asalaamaaleykum asalaamaaleykum victoire victoire neex na bànneex amatina amatine amatine. football local bi delloo nañ ñu njukkal donc euh, muy tay Moussa Ndiaye bi mu dugal xam donc euh, Sénégal euh, danoon ñëw premier match am CHAN muy Coupe d'Afrique football local bi donc Sénégal ñu ko doon xaar parce que match bi outsider lañ parce que dañu ne Côte d'Ivoire mo ñu gëna a baax championnat seeni seen seeni match sax dañ koy tek canal donc aussi tamit au niveau de Afrique tamit si Coupe Afrique yi tamit ñoo ñu gëna sori et tout xam ñoo ñu gëna baax équipe te pare Sénégal bëri na ay joueurs yu xamante ne moroon nañ fi nekk ñii dañoo dem Maroc ñii dañoo dem euh, bi xamu nu mu demee noonu mais dañuy doo mën a sax convoqué yeneen boy yi xamante ne dañoo toj fii xam donc waaye boy yu bëri kii da leen ñàkk te fallait mu def nii donte bi mu defee liste bi bëri na coow dañu bëggoon gis tel joueur dañu bëggoon gis tel joueur mais ku ku def choix di nga éliminer donc euh, tey franchement rien à dire euh, boy yi géré nañ ko équipe bu Pape bo xolé équipe bu Pape nak système bi euh, na leen ko jox un peu ni mu jouer tay parce que c'est c'est assez intéressant dans un 4-2-3-1 le jouer euh ko si si moo nekk ci cas, yi Ndiaye djou euh, bah, boy, j'aime bien le numéro le, 6 là, à côté de Diouf quoi. J'aime bien, quoi. Franchement, c'est deux profils complémentaires. Et c'est un match pour maintenir comme nous dit, nous sommes Côte d'Ivoire leen euh, li euh, match bi nous fois 14 fois am alors que euh, Côte d'Ivoire tirs 3 possession ñu bi donc ñoo ñoo ay passes xam nga donc passe réussie euh, ñoo ngi am nag treize fautes waa Côte d'Ivoire ñoo gën a salté football boo koy xool tey jii fautes yu bëri noonu def mooy joueur di tax ñu xëcc ko ba kooku ñu war noonu bu c' est mal tiré trouve quoi franchement mais garaawul couvre naa yi moom xamoon nañ ne nañ ko parce que gis na yàggul temps yi passé dugal naa benn vidéo match amical saa yi tekk si laxas ko si balaa dara di xew donc ko bi del poto après tok nañ du yag nak xamal ko di xaar baaru vaar di xaar di xaar bo moom ba suñu borom xamal ne naay sant yàlla alhamdulilah ñu accordé bi bi ñu soufflé après voilà quoi dara xewatul buñu ba man man ni ñu jouer avant ñu dugalee bi sax mo gën ñu jouer après bu ñu bi parce que après bi da ngay gis ba ñu ko mbéy alors que man football yi gën ak ko gis en si petite catégorie la kay koy gis élaborer ni ñuy élaborer jeu bi ni comme U23 li ma gisoon si moy équipe bu ñëw junne bi booy non lo la laa gis tey de dañuy élaborer ni tak jox góol bi mu tek même si góol bi mom xam nga zéro pied war na ko gëna a travailler maintenant dañuy élaborer jeu xam nga donc li mom li li dalay jox yow euh nga sawar dem championnat Sénégal tay ji match bu amé parce que y a des jours de temps quoi franchement Sénégal moo tax doon na ko talent cassé la talent talent yi dul jeex suñu borom moom xamul ñu mënul ci football bi dé mais talent cassé cassé cassé talent kese booy non booy Moussa Ndiaye tey génn ñu si non match bi kontaan naa kontaan naa si gaynde yi kontaan naa si système bi si les dernières minutes décasé bi am na benn mm, mu amee deuxième bii bi ñu xool VAR noonu maa ngi doon xalaat sax bii bal ñu xaw a dégagé ñoom ñaar ñu ñu ñu dégagé ba jox ko waa ji mu tiire xam nga donc Ivoirien yi mu tiire noonu saa loolu à côté foofu foofu foofu ressaisir nag saa gars yi ba mooy ci doon loolu li li yi li leen doon xaar seen ndam et à noter ma gisee maillot vert ma ne pour une fois mooy ils gagnent. c'est la première fois ñu suñu gagné parce que si je ne trompe pas contre Iran lañ ko soloon gagné ñu contre Angleterre ñu dul maa ngi nii xam nga dañ ko critiqué ba sonn tey gagné nañ si sax heureusement franchement zéro euh, euh, sénégalais yi géré nañ match bi li moo ëppoon importance donc parce que Henry euh, Congo xam de dafa match nii te dañ ne moom mooy mooy groupe bi mooy kii parce que moom tamit championnat propre ay heures ñu bëri dañ ne moom mooy favori poule bi te dafa def match nii ak Ouganda bi ñu wax ni normalement mooy équipe bi xamante ne à battre mais da ngay gis ne football Afrique moom nii la ma samel kenn mënul kenn xam nga donc boo mënee gagné Sénégal tey mënoon na gagné benn 2 3 0 franchement man si li ma gis tey jii oka non mënoon nañu jël benn 2 3 0 quoi en tout cas si à féliciter et et wax leen ne franchement def ngeen lépp euh, féliciter leen ñaanal leen parce que déjà boo amee une victoire deuxième victoire boo ko amee te qualifié c'est fini c'est fini en tout cas match bi di ñëw dina métti dina dina jër mais ñoo ngi si ginnaaw gaynde te gëm nañ mën nañu def exploit mbokk yi lii mu nekk benn vidéo bu xamante ne bëgg naa ko partagé ak yéen comme yéen moom la ñu di seen match Sénégal bi euh, ci commentaire wax leen ma si seen xalaat ak seen gis noonu lañ